Est-ce que Idriss Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 Est-ce que réponse du mën naa question li pas. ko sentir dama def question la la pour le simple est-ce que yow une question Manga halak, élection présidentielle Sénégal egsi Idrissa Seck di dund dese bakkan am wér ak cawarte te du jaboo xalaat loolu wala xalaat ah? xalaatoo ko de est-ce que xam nga kenn ku mën a xalaat loolu kenn rek ku ko mën a xalaat waaw léegi nag réponse bi gën a gàtt mooy waaw